sëriñ Saalihu jooy naa ko jooyu xol yu foor man ñàkk naa wurusu foor jant la moom moo tax mu muur leerub bi di yow xamal sunu cër yi weet xol yi weet daara yi weet kër yi weet yëgal ni tey jii fépp weet kuy wetileeti amatul miskin yi tey ñëpp a ngi jooy jirim yi ak faqiir yi yooy gone yi ak mag ñaawaa jooy ku leen di woo di nax amatul donga yi tey jii ñëpp a ngi jooy murid itam ñoom ñëpp a jooy yëgal ni kii ñëpp a ko jooy ku mel ni moom taxawatul donga yi tey ji ñàkk nañ ma ñi kasaaka ñàkk nañ fu ñuy jëleeti waaja daan fo bi gone ki tam-tamal adduna yaaka mën a war xamoo ku baax xamoo waloor fii taxaw danga ko war sa melokaan amul solo adduna yaaka mën a xamoo ku baax xamoo woloor lu fi taxaw danga koor saw melokaan amul solo sëriñ saaliw wéetal nganoo sa dem gi daal jaaxal nanu yow lanu xam nga dem banoo fu ni jëleeti xel mu dal sëriñ saaliw moonu daa xamal yàlla ak nuy bégal tarbiya moonu ko defal kuy wuutu ki ci li amatul jëfam ji rëy na seere ko ku lumur seere na ko tijaan waxaadir seere ko ku mel moom amatul buy yëglu woon ñu fi des wallahi kon ñu dem mu des ndax nañu moom kat ba ni fes ñu des fi nun ku ni defal naalam yi tax na ñëpp gëm yàggam fi ak wéru cërëm bam tàmbalee ñu gën a gëm mu daa di dem te àggagul demam gi daa diis fi nun ma wax tax mu diis fi nun danoo bëggoon mu des fi nun nu am ngërëm baam alal su ko defee nu am i doom yëkkati leen andi fi moom mu defar baay defari doom lin mébétoon na ngi àggul alhamdulilahi ndegam ñun la mujjee ci ay loxoom te ñoo mujjatam ci am xelam walaahi lii doy na ngëneel na yàlla buur fayal nu ko ca moom te teeru jëfam ci nun Sëriñ Saaliw matal na yàlla buur fayal nu li gën ca moom te teeru jëfam ci nun matal na ko dellu na moom di xaadimul rasuul jasaau rabbuna alkarim ala xalifati alxadim salina ibni alxadim xad kaana yukmalul amal Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké